asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 9 décembre 2020 ñu ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy génn wala que mu ñu xëy woon ci mu njëkk du kenn ku dul Ama Baldé sëll bu ndaw borom pikin borom caw sa xeer mu mel ni ki nag yëglikaay bi daal la mu ñu xëy wan daal wala boog la mu ñu xëy wax daal nee amaa ama fi mu nekk nii daal wala waa pikin ci seen wàllu bopp daal fi mu nekk nii benn soxla la ñu am benn jëmuwaay la ñu am mooy maanaam pousser Ama Baldé ngir bu dajek Modou Lo la ñuy wax roi des arènes ba di couronne ba rek ca parcelle te Modou yor ko mu nangul ko mu mel ni ki nag fi mu nekk nii yëglikaay ba moom ci ay gëstoom daal xamal nañu ne soo bëggee dégg dég moom ay réunion nocturne maanaam ay réunion yoo xam ne daal ay waxtaani guddi yoo xam ne ñu ngi koy amal maanaam daal di waxtaan ñoom waa Pikine ancien gulwaar yaag mbër yaag ñépp a nga mobilisé wu daal la ñu fas ne daal mooy Ama la ñu bëgg a pousse ngir bu dajee ak Moodu daal roi ba moom Moodu ñàkk ko Ama nangu ko indi leen ko ca Pikine mel ni ki sunu lamb moo xëy ñëw indil ñu boobu gëstu leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci mooy la nga xam ne ni moom moo di lamb ji ak taxaw ga nga xam ne nii taxaw na ko maanaam ba tey xameesul fan la jëm loolu nag yëglikaay bi xëy na tey xamal nañu ne daal loo mënti dégg maanaam daal ay gars ngi dox ci suuf yoo xam ne ni daal di préparer loo xam ne ni day li ñu bëgg daal mooy génn nag wane seen bopp wax état bi nag mu ubbi làmb ji fi mu nekk nii ngir ñu mën a bëre mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb xëy na tey fesal loolu ci xëtam mu njëkk mel ni ki nag fi mu nekk nii daal ku mel ni le roi des arènes moom moom Modou Lo ne day moom Modou fi mu nekk nii nag état di Sénégal la interpellé ngir nag lamb ji ñu wax ci ubbi ko ngir nit ñi mën a bëre wala boog ñu xool noonu daf yëglikaay bi di suñu lamb xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag fi mu nekki nii ba tey mbir mooma ka doon laaj CNG bi di Kéba itam xëy na wax ca Kéba la mu xamle daal na fi mu nekki nii lamb ji moom ay droit am lañ ko war a joxaat maanaam mu delluwaat fa mu nekkoon ñu bëre lool mooy waxi ka nga xam ne nii moom moo di ba tey Kéba kante am na leen wax yoo xam ne tamit wax na ko wala mu seq ko Iba Kane ñëw na tamit ci wàllum promoteur yeeg na ngay def ba nekk promoteur

fasutoo yéene waat nekkaat candidat loolu daal mooy la nga xam ne ni moo di ay waxam ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb leneen loo xam ne ni wala beneen combat boo xam ne ni daal taxaw na muy diggante guy gi ak rëg-rëg yëglikaay bi nag xëy na tey toppal ñu ñaari mbër yi ak ku ci ne ba nga duggee ci làmb ba tey wala boog juróomi at yi nga xam ne ni moom la ñu mujj bëree ñoom ñaar wala ñu génn ci bu fekkente ne côté rëg-rëg la moom yëglikaay bi nag boo xoolee cinq saison yi nga xam ne nii moom la mujj a def daal rëg-rëg bëri na ca lu toll am na ca lu toll ci victoire ak benn sans verdict ak la nga xam ne ni moom moo di benn année balance bu dee guy gi la nag moom cinq ans mujj mujj ñaari victoire la ci am ñetti defet ak ñaari année balance yëglikaay bi moo xëy ñëw tey toppal ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki ñoom ñaar nag boo xoolee ci côté komba guy gi moom ay combat yëpp boo ko dajalee am na lu toll ci 23 combats am na ci 16 victoires ak 7 défaites ka nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg moom itam lu toll ci 13 victoires la am ak la nga xam ne nii moom moo di ñaari combats sans verdict jaagar jaagar la guy gi njëkk a bëreel le 19 avril 2008 ka nga xam ne moo di rëg-rëg moom Alioune Seye Junior la njëkk a bëreel le 11 mars 2012 yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi daal ka nga xam ne nii nag moom moo di Jean jaata nekkoon fi ancien pensionnaire équipe nationale bi nga xam ne nii yëngu ci wàllum lambi olympique maanaam nit olympique ba daal gen daal la ko naqari ba mu xëy tey di ko jooytu lenn la jàpp na ne li nga xam ne ni daal moom moo di lit olympique bi daal jàpp na ne parce que fii ci ko gëdd toppatoo defatuñ ko ko gen jaata wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee ne ni dem xam ne ni nag moom moo di ca record record moom la munu xëy xamal wala boog la mu xëy daal di wax maanaam cinq maires yi nga xam ne nii ñoom ñoo am ci histoire lamb juróom ñi dàq bëre ku ci nekk nag joxe nga ci sa xalaat bu dee père Ibrahima Ndiaye la moom la mu gis daal jàpp na ne ki nga xam ne moom moo di Yékini ak ka nga xam ne nii moom moo di jàpp ne moom mooy vrai roi Tafa Gueye nag moom génie la ko tudde ci wàllum la mu jàpp daal barabara la gis Fallaye Balde Maam Góor gi Ndiaye ak Mbaye Gueye Ambroise Sarr entraîneur équipe nationale moom la mu gis ne Robert daal la gis ak ka nga xam ne nii moom moo di lees Mbaye Gueye Yékini ak Balla Gaye numéro 2 ba tey moom loolu la gis ka nga xam ne nii nag moom moo di Max Mbargane ba tey Nicolas Sarr moom Pape Kan Caaroy la wax Mbaye Guèye Robert lees ak booy Niang numéro un bu cees ka nga xam ne ni moom moo ne raay ba dëkk ca mbuur moom tamit la mu xam ne daal moom falang la gis Cheikh ba Robert mbay Guèye ak Yékini mel ni ki daal kon ñoom ñooñu maanaam daal ñooñu la tànn wala ku ci ne tànn nga ña nga gis ci jàpp ne wàllu mbëre moom deesu leen ci raw ba tey nag bu buñ fa jógee dañuy dem ca la nga xam ne moo di jalgati làmb ba jalgati ba nag moom tey mu nga dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo Abdou Bakhoum ne ca diggante ba Abdou nag wala boog Ama moom mu nga naan gintee cere balde gintee cere bu ànd ak ndawal Abdou baaxum de xamal Modou Lo ne ko kii moom du ñeexum ñebbe Modou Lo ne ko man dey loo ci mën a dégg moom du ma ñeexum ñebbe ñoom ñaar ñag wala ñoom ñett ñu nga jàkkaarloo di defante hélas kon mbokk yi nuyuwaat nañ leen siyaaraat leen rek ah di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen tey ni ngeen ko xamee waaw yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la fu ci nekk rek xibaaru làmb tey mu nga fa bu dee yëglikaay ba nga xam ne ni nag moom moo di sunu làmb la moom ah tey xëtam mu njëkk lam ca xëy fësal daal mooy Ama Baldé waaw sëllu bu ndaw daal fi mu nekk nii moom roi des ba daal la waa Pikine di xool nañ leen koy jële ngir mu nekk ñetteelu yoon muy dugg Pikine nen nag fi mu nekk nii Pikine moom ñoom ñëpp a ngem taxaw maanaam daal takkule Ama Baldé di def ay réunion guddi maanaam ay maanaam ñu ngi koy nekk ni lépp nag maanaam ngir fas ko yéene jàppale ci combat bi nga xam ne ci la jëm muy diggante ak Modou Lo di mobiliser wu daal ngir nag roi ba ñu fas ko yéene nangu andil ko ca Pikine jaare ko ci Ama Baldé mel ah, moo <laughs> ah, que dama naan loolu moo war a am parce que li tax mooy dañoo jëm ci bés bu mag a mag a mag ndax bés bu toll ni bésu roi des arènes nga war ko xëccoo ji ci xale bu toll ni Ama dafa naa kon képp kuy doomu Pikine ah boo ca dugalee sa loxo dañ naan du bet loolu mooy li war war a am te itam jàppal ne noonu lay demee ca côté parcelle ñoom ñoo ñoom ñoo yore roi bi tamit duñ ko bëgg a per waaye loo ci mën a dégg daal nañuy ñaan yàlla saison bi ubbeeg jàmm ndax xam naa combat bi moom des na ko waxtaane waat si anaalu lamb insha allahu rabbi yàlla nañ ko fekkee te tal ñu bëre ko si jàmm que le meilleur loolu la ñaan ba tey bu nu continuer ak sunu làmb ba tey yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci loo xam ne nii moom mooy làmb ji ak fii nga xam ne saison boo xam ne daal dafa fulu maanaam ak lëndëm kenn xamul fuñ ci jëm demuñu ci ceew ngi dikkuñu ci mbaylaar maanaam mbir jaaxle fi mu nii moo tax nag gaay ah, ne nit ñoo xam ne nit ah, la ñu bëgg dag mooy interpeller état bi wax ko mu ubbi làmb ji nag parce que ku ne yaa ngi ñu bëri ñu def seen activité fi mu nii te làmb ji boobu tey wax moom danañ interpellé na état bi loolu nag waxoon nañ ci dem dañ ciy waxaat te di ci continuer di ci wax man newuma nañu ubbi làmb wala bu ñu ubbi làmb waaye li ma wax mooy bu fekkente ne hélas am na ñoom ñu ngi def seen ay soirée ñu di organiser seen ay organisation di def leneen ak leneen waa làmb ji moom ñu toog looleen loolu defe naa itam ah waaw li li tubaab naan deux pas deux mesures te est loolu yoon la warata mën a ne pour man ñun ñëpp ay sénégalais lañu nañ ñu yemale ku ci ne la nga moom ñu jox la ko bu fekkente ne yoon la nañ ñu ubbil suñu làmb xool nuñ koy organiser ànd ko ministère des sports bi ñu yilif ak waa ministère la santé ak intérieur ak ñi nga xam ne ñu acteuru làmb ji ñu mën a bëre affaire yi dem parce que tamit lool pour man warul mën a ñàkk ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lam Keba ñëw na ci mbir yooyu mais wax na ci ay dëggam nee na daal fi nekk nii état kuy acteur du bëgg nga lool waaye lépp rek nañ ko teg ci la nga xam ne ni moom la war a amee maanaam jaar ci yoon parce feebar bi ñuy wax corona lépp moom moo ñu ko ni waaye daal fi mu nekk nii moom bëre bi soxla nañ ko ba tey Keba wax na lu am solo nee na licence duñ bu keroogee hélas dootul am benn njariñ ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi du jànjeek ko ku ne xam ne ne moo jiitee les amateurs moom nag ne na daal ah su ne suis pas candidat à ma succession maanaam daal prochaine fois moom ah bu élection amee moom du nekkaat candidat ci place maanaam kon daa jàpp ne kon keneen moo koy remplacer ndax du présenté wu pour nekk candidat loolu nag defe naa ne lu jaadu la bu ko defee parce que li tax mooy ku ne xam na ne depuis euh, góor gi Ibra Diop ñu koy suñu wayjur boobu defe naa ba mu bàyyee ba tey du jaañ moo jiite amateurs yi muy lu ama am solo loo xam ne defe naa tey bu demee ba heure bi nag ah bu waree jeexal mu ne bu jeexalee dootul laajaat ah loolu mooy day bëgg a may ñeneen ñi des rek chance parce que lamb ji dafa yaatu te bëri ci ñoo xam ne nii ñu ngi ci di ci son moom itam wax dëgg yàlla ñu koy jaajëfal moom duudu ndax yàgg na cee waaram bu baax a jaañ jekko rëg-rëg guy gi yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ñaar seen juróomi at yu mujj rëg-rëg juróomi atam yu mujj moom huit victoire dajale na ko ci benn sans verdict benn saison blanche rëg-rëg cinq juróomi atam yu mujj deux victoire trois défaites deux saisons balance boo xoolee kon cinq ans yu mujj yi rëg-rëg moo gën a régulier moo ëpp ay victoire moo gën a nekk guy gi ci làmb ji parce que loolu la ñu wane ci ay chiffres fi mu nekk nii muy ñetti muy ñaari mbër yoo xam ne nag seen combat ku a xam ne ne euh, waaye loo ci mën a dégg itam combat la boo xam ne mu itam bés bu rëy rëy rëy la muy ñaari mbër yoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ mérite ndax boo xoolee bu ñëwee si làmb yàggul mais tey xoolal fi ñu toll ndax guy gi 19 avril 2008 bëreeg jaagar jaagar tey xoolal fu mu nekk ci làmb rëg-rëg ñëw kañ le ñëw kañ rëg-rëg mu ngi ñëw le 11 mars 2012 xoolal tey fu mu toll loolu lay wan ne hélas lépp looy def rek am ca fulla la Youssou Ndour noonu daqaar sax boo koy jaay faw nga am fayda mooy dëgg kon ñaari mbër yooyu loolu la seen mbir Jean Diatta moom la ko naqari moom lutte olympique la gis ne dee na fi mu ne ci réew mi kon lutte olympique bi nañ ko dekkalaat nañ ko joxaat gëdda moom nag ancien passe honneur équipe nationale la waaw kon Jean loolu la xëy wax record juróomi mbër yi dàq bëri ku ne joxe nga sa xalaat foofu la xëy tey ñëw Père Birahim Ndiaye Yékini la wax la vrai roi Tafa Gueye la tuddee le génie Ibou bu ñu ko bàyyi moom da ko wax mooy bara bara Falaye Balde maam góor gi ak Mbaye Gueye père Max Mbargane itam wax na waaye boo xoolee wax ji jépp dafa mel ni daal ah euh, li ma ci gis ci ay tur ci ci ñuy si parce que boo xoolee Birahim père Birahim euh, kii kii Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi cité na Mbaye Guèye Ambroise Sarr cité na Mbaye Guèye père Max Mbargane itam cité na mbay Guèye wala boog raay ba cité na Mbaye Guèye waaw père Max Mara cité na Mbaye Gueye kon dafa mel ni Mbaye Gueye daa mel ni daal est-ce que du moom moo bu ñu doon ay point daa mel ni kon mooy moom mooy raw mu mel ni kon ñoom ñu tànnee li am solo mooy ñun ñëpp ku ci ne am na loo def gis nañ ci ko tamit tudd nañ ko ci biir euh, tamit gis nañ ñu cité ko ci ko ko cité nag mooy Ambroise Sarr waaw loolu moo lay wan ne kon ah bëre bi am na ci waa masha Allah mën nañ ko waaw loolu mooy li nga xam ne nii tey moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi leen siyaar di leen ñaanal jàmm xam nga di ko ñaanal bépp doomu aadama di wax que ni Sénégal leen fi yàlla def jàmm hélas di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñu suivre ci Equivox yëpp fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di bëgg di leen siyaar waaye tamit di nuyu ñëpp ñi nga xam tamit ñu ngi ci Vox wala bo ci fi Vox parce que ma leen di fàttali rek que ni la nga xam ne moom mooy tournoi c bi nga xam ne moom la waa Vox Arena tëgg waaw waa Vox Arena moo tëgg C5 bi ànd ko ak kan Equivox yaa ngi dégg ñu fas yéene leen dikkal rek ci lu. neex bu saison bi ubbee ci làmb parce que tamit ku yokkul yaa wàññi te ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di balu ñëpp ak di suñu soppe yi waaye tamit di waxaat rek suñu mbokk noir africain yi nekk biir Europe di football wala sax même ña fa nekk sax di dund ñu ngi leen di soutenir parce que nit ki mën na leen xëy na euh, téye nègre man de je suis fier d'être nègre hélas loolu moom ku ma ko wax da nga maa tagg rek boo ne ma négro ma ne la wéy je suis un nègre je suis fier d'être nègre po bi dañ ko fonk parce que mu ñu laay kaaba gaa ngi nii di ziar ñëpp kon demba ba gis nañ dem sest bi mu def di ko soutenir mook asil webo bi nga xam ne moom ci stafu ba sax saxiir bi la bokk bu nekk Turquie di wax ne que rek addinaa ngi noonu yàlla na yàlla def ci am